Koulibaly yëkkati na kàddu li mu xamle nag moo di man ko wuti waat ndam li manko wuti ndam li la ñu waxoon dem ci réewu Cameroun mu jig ñu ñu indi raaya bi moo tax Kalidou Koulibaly ne manko wuti waat ndam li nañu ñaan nag ndam loolee ñuy wuti mu yomb lool ci ñun ñu indiwaat ko ci réew mi ndax loolee lu mën a nekk la président Macky Sall tamit ba mu joxee gaynde yi raaya bi ba noppi dig na leen ay mbir ne leen bu ngeen indee coupe bi fii ci réew mi dinaa leen defal ay mbir yu rëy loolee le président bi xamal gaynde yi gaynde yi nag bi ñu leen jébbalee drapeau bi ba noppi bawoo nañu ci réew mi yegg nañu tamit ci réewu Côte ci jàmm dëkk bu ñu naan Yamoussoukro ñoo ngi fa yegg vingt et une heures nañu leen ñaanal nag ñu dal ci jàmm door Coupe d'Afrique boobee doorin bi gën yenu raaya bi indil ñu ko fii ci réew mi bu dee Bamba Dieng ak Alfred Gomis moom yegg nañu ci kodiwaar ngir jàppale gaynde yi Bamba Dieng moom mooy wuutu foofee Boulaye Dia Seyni Dieng ci koy wuutu moo di Alfred Gomis Bamba Dieng nag moo mujj ci réewu Côte yegg na gaynde yee ko fa njëkk te ci coupe d'Afrique bii weesu ñu ko doon footballee ci réewu Cameroun tamit nii la demee woon ndax Bamba Dieng moo mujjoon dem ci réewu Cameroun li ko waraloon nag bokk na ci xam ngeen ne corona jamono joojee mi ngi fi woon am ñu amoon corona moom Bamba Dieng bokkoon ci bokkoon ci ñu mujj wér door a dem bi muy dem nag moom moo mujj ca équipe nationale ba ren jii tamit moo fa mujj kon est-ce que Bamba nekkul sunu porte-bonheur maanaam sunu mbégte nañu ñaan nag mu jig comme ni mu ñu jigee woon ci coupe d'Afrique bi weesu équipe nationale bi yenu bi indi ko yegg na ci jàmm foofee ci réewu Côte muy Bamba Dieng ànd ak Alfred Gomis équipe nationale bi nag laata muy dem ca Côte d'Ivoire amal na match amical bërki démb la woon Niger doon jàkkaarlool match boobee nag Aliou Cissé football lu na ca ku mësul football ci équipe national bi mi ngi tudd Abdoulaye ñaxate Ndiaye moom football na ca match boobee mu doon matcham bu njëkk ak équipe nationale bu Sénégal Aliou Cissé nag bi mu yoree équipe national bi ak tey jii li mu football lo ci ay gone seen premier match ci équipe nationale bi mi ngi toll ci quatre-vingt-dix-sept maanaam juróom-ñeent fukk ak juróom-ñaari gone yoo xam ne Aliou Cissé moo leen njëkk a football ci équipe national bu Sénégal bu yàggut la ko def muy bërki démb ak gone gii di Abdoulaye Niakhate Ndiaye journal bi tamit fàttewul Ligue 1 bu Sénégal démb lañu ñu tëj fukk ak benneelu bëccëg bi maanaam onzième journée bi jaraaf jamono bu Fatick ñaari bal ci dara la ko jaraaf gagné jamono ji sax Ligue 1 bi am na njiit bu bees tàq ndax jaraaf moo jiitu Tëngéej football club topp ci Dakar Sacré-Cœur nekk ci ñetteelu place ba mbabba ndaare yi maanaam ñi nga xam ne bu fi yemoon ñu wàcc moo di jàmbaar ak jamono bu Fatick jàmbaar mooy avant ndaare jamono bu Fatick moo jël ndaare ci Ligue 1 bu Sénégal ñu jugee stade yéenekaay dem groupe Futurs Médias fekk fa record yéenekaay équipe nationale bu Sénégal ak raaye bi leen président bi doon jébbal démb la journal bi fësal ca xët wu njëkk wa des lions mission mission reconquête équipe national bu Sénégal nag ma ngay wutali réewu Côte d'Ivoire ngir raaya bi mu yor jamono ji mu sàmm ko indilaat ko askan wi ci réew mi loole la askan wi yépp bëgg waaye loolee tamit la sóor yépp bëgg ki ko dëggal sax moo di Kalidou Koulibaly nee na ñoom motiver nañu leen maanaam ñaax nañu leen te nekk nañu am bloc maanaam doon nañu benn say ngir xàccandoo dóorandoo yenu waat raaya bi indil ko askan wi loole sax ki ko dëggal moo di maître Augustin Senghor Senghor moom mooy président fédération bi moom nee na équipe nationale bu Sénégal ay ndaw yu xarañ gëm seen bopp nekk ay patriote maanaam gone yu bëgg seen réew la équipe nationale bi am te jàpp naa ni dinañu jëmbat fulla ca réewu Côte d'Ivoire waaye président Macky Sall mi leen jébbal raaya bi dig na leen ay mbaquus ne leen bu ngeen jëlee coupe bi di ngeen am ay mbir yu doy waar yoo xam ne man maa leen koy defal équipe nationale bi nag ginnaaw bi mu bawoo fii ci mi yegg na ci jàmm ci réewu ñu naan Yamoussoukro kon nañu leen ñaanal ñu dal ci jàmm door coupe d'Afrique boobee yenu raaya bi indil ñu ko ñu jugee Sénégal wëtali Portugal fekk fa oxogo moom waa Porto la fësal ca wu njëkk wa démb nag Porto ak Sporting yépp dañ doon football coupe du Portugal ñoom ñaar ñépp nag dañoo am ndam lu ama am solo kenn ku ne ci ñoom ñeenti bal ci dara nga gañe bu dee waa Porto ànd ak seen attaquant bii di Evan Nilsson ñoom Estoril lañ doon jàkkaar lool gagné ko ñeenti bal ci dara match boobee nag mi ngi soxaloon huitième de final gone gii di Evan Nilsson nag kenn du moom ca match boobee ndax ab triplé la ca amal maanaam ñetti bit la dugal ca match boobee bu dee waa Sporting moom Tondela lañ doon jàkkaarlool gañe ko ñeenti bal ci dara ñaari attaquant yi nag kenn du ñoom ca match boobee ndax kenn ku ne ci ñoom ab duble la amal Guillaume Keres dafa doublé ak gone gii di Pedro Gonçalves ñu am ndam lu ama am solo muy waa Sporting jamono ji nag Sporting ak Porto yépp na nañu ca quart de finale coupe du Portugal ba démb huitième de finale lañ doon jongante ñu jugee Portugal wutali France fekk fa l'équipe Nasser Al Khelaifi mi président wu Paris ak Kylian Mbappé le journal bi fësal ca xët wu njëkk wa Mbappé de nitu kaddu la loolu nag du samay kaddu kaddu président bi la démb dafa séq waxtaan bu yaatu ak l'équipe wax na nag ci ëllëgu Kylian Mbappé moom nee na Mbappé nitu kaddu la lépp lu mu la wax rek lu muy def lay doon kon ñi nga xam ne dañ naan Mbappé day wor di wax lu dul dëgg ñooñee président bi weddina leen ndax président bi nee na Mbappé nitu kaddu la teku ku gëm boppam la waaye nee na ñun waa Paris jàpp nañu ne Kylian Mbappé dina yokk kontraam toog fii jàppale ñu ndax loolee la ñu bëgg te jàpp nañu ne loolee moo gën ci Kylian Mbappé waaye nee na Mbappé tamit mën naa jógee fii ci Paris dem ci beneen club ndax mbir mi jamono ji dara leeragut loolee le président bi xamle waaye nee na ñoom waa Paris li leen gënal moo di Kylian Mbappé yokk toog foofe doxal dina yokk am du yokk moom mën naa am ñu xam ca lu leer balaa yàgg ndax weeru janvier bi ñu nekk mën nañoo am ay xibaar yu leer ci Kylian Mbappé day yokk contraam wala day dem ci beneen club doxal loolee incha allahu rabbi dara du leen ci umpo ñu jugee France wutali Londres Angleterre fekk fa Mirror Sport waa Middlesbrough mi def jaloore démb la journal bi fësal ca xët wu njëkk wa Chelsea bu ñoom Nicolas Jackson lañ doon jàkkaar lool mu loon match aller coupe de la ligue bu Angleterre Middlesbrough bu ñoom seeni jee nag moo am ndam benn bal dara match aller képp la woon nag des na retour bi mardi koy jongante incha allah waaye match boobee démb li ca gën a doy waar moo di Chelsea dañoo rate ba doyal rawatina seen gone gi tudd Cole Palmer moom li mu rate bari na lool loolee surnal journal bi le waaye bi match bi jeexee nag supporteru Chelsea yi dañoo mer ba futu waaye yemuñu ci mer képp ndax dañ doon yuuxoo joueuru Chelsea yi waaye Thiago Silva moo jël kàddu wax ak ñoom ne leen dal leen lii nag football la defet ak football ñoo ànd waaye maa ngi leen di ñaan ngeen dal dese nañu match retour te li ñu bëgg ñun waa Chelsea moo di match retour bi ñu am ndam qualifié dem ci final coupe de la ligue ba loolee la Thiago Silva xamal supporteru Chelsea yi Timo Werner it mi ngi ci journal bi moom nag officiel na dem na ca naam dañ ko able foofee able googee nag am na option bu ci nekk option ba nag nekkul obligatoire maanaam du force mi ngi toll ci dix-sept millions d'euros Tottenham bu neexee waa Tottenham ñu xaatimal ko contrat Alexander Arnold tamit mi ngi ci journal bi doomu Angleterre bi nag dafa am blessure ca senu ba maanaam ca omba la yëg mitit te dina toog ayu bés yu bari doora dugg ci terrain football xibaar boobu nag neexut ndax jamono jii waa Liverpool seen ñaari latéral yépp dañoo blessé ndax Robertson amoon na blessure bu yàgg ki ca toftalu moo di Alexander Arnold moom keroog bi ñuy jàkkaarloo ñoom waa Liverpool ak Arsenal blessure ca genou ba maanaam ca oom ba lay te dina toog ay semaine door a dugg ci terrain football ñu jugee Londres Angleterre wëtali Espagne wàcc Madrid fekk fa marka yéenekaay derbi bi war a am tey jii soxal ñaari club yu nekk ca Madrid la journal bi fësal ca xët wu njëkk wa les madrilènes pour le monde ñaari club yooyee nag àdduna gépp ngi leen di xaar tey jii dinañu jàkkaarloo ci réewu Arabie Saoudite journal bi nee na derbi yu bari yi ñuy xaar soxal ñaari club yooyee tey jii la ñu koy door ndax dinañu jàkkaarloo ñetti yoon ci ñaar fukki fan maanaam trois fois ci vingt jours loole la sournal bi xam le derbi bi nag ci réewu Arabie Saoudite lay amee soxal demi-finale super coupe d'Espagne bu dix-neuf heures jotee waaye match boobee nag tey jii VAR maanaam ki nga xamante ni mooy nekk ci VAR bi su fekkee dañu ko soxla muy wax ak arbitre central bi maanaam ki ci digg bi li muy wax du ump ña nekk ca stade ba ñépp dañu koy dégg loolee nag ki ko dëggal moo di président wu Espagne mi ngi tudd Luis Medina Cantalejo moom moo xamle ne tey jii li arbitre bi ak VAR bi di waxtaanee ñépp dañu koy dégg du ump kenn bu dee Diego Simeone moom li ko jaaxal moo di ñaar ñii xamagul kan la cay départ mu doxal muy Molina ak sawul bu dee Carlo Ancelotti mi tàggat Real de Madrid moom mi ngi wax nee na moom bëggul di jàkkaarloo ak Atlético de Madrid ci ay match yu bari rawatina match yu tegaloo nee nee na loolee wóorut ndax defet mën na la caa dikkal saa su nekk loolee la Carlo Ancelotti xamle bu dee Diego Simeone moom nee na ay goneem noppi nañu te gone yi muy tàggat bu ñuy tasee ak Real de Madrid dañuy gën a am fulla gën a gëm seen bopp gën a bëgg li ñuy def waaye tamit gën a xiif ndam loolee la Diego Simeone xamle Nasser El Khelaïfi tamit mi ngi ci journal bi moom nag mi ngi wax ci Kylian Mbappé nee na jàpp na ni Kylian Mbappé du def waa Paris lu ñaaw jàpp na ni Kylian Mbappé yokk kontraam toog ca pari doxal ndax pari googeekat këram la te moom foofee ca France la dëkk te mi ngi ci jàmm mi ngi ci salaam jàpp na ni Kylian Mbappé dina yokk kontraam toog ca Paris doxal loole le président wu Paris xamle ñu jugee Marca yéenekaay jël AS yéenekaay Bellingham ak Antoine Griezmann le journal bi fësal ca wu njëkk wa ñaari club yi nekk ca Madrid nag tey jii dinañu jàkkaarloo waaye nag mooy doon jàkkaarloo bu njëkk file ak ñaar fukki fan ndax ñaari club yi dinañu jàkkaarloo ñetti yoon ci ñaar fukki fan kon tëb bu njëkk bi tey jii lañu koy amal sournal bi nee na matchu tey bii nag matchu dëgg la li ko waral moo jamono ji coow li juddu na te match bi dooragut ndax kat waa Real de Madrid démb biñ leen xamalee kii arbitré match boobee soxal super coupe d'Espagne ci réewu Arabie saoudite nee nañu ki koy arbitré mosul bëgg Real de Madrid te saa su arbitré seenu match dañu cay sonn lool waaye match bu nara neex lay doon waaye ñoo ngi cay xaar tamit ay bit ndax juróom ñi jiite ca liga ba ëpp ay bit ñett ñaa muy Bellingham Alvaro Morata ak Antoine Griezmann liga ba Bellingham moo fa ëpp ay bit am na treize bit fukki bit ak ñett ñaareelu place ba Alvaro Morata moo fa nekk moom am na douze bit fukki bit ak ñaar juróomeelu place ba Antoine Griezmann moo fa nekk moom onze bit la am kon nag tey jii nañu xaar ay bit ca derbi boobee ndax juróom yi ëpp bit ci liga ba ñett ña ñëpp ñoo nga fa tey jii dinañu def rénkum jàkkaarloo bu 19 heures jotee ñu jugee Madrid wutali Barcelone fekk fa esport Ronald Araujo la journal bi fësal ca xët njëkk wa waa Barcelone nag yegg nañu ci jàmm ci réewu Arabie Saoudite waaye nag jamono ji mbégte mu rëy la ñu àndal bi ñu wàccee ci réewu Arabie Saoudite mbégte mu rëy lañu ñu àndal muy gone Xavi yi bëgg-bëgg bi ñu am nag moo di super coupe d'Espagne boobee ñu jël ko mu nekk seen coupe bu njëkk ci at mi ñu nekk waaye tamit ñu yokk seeni bëgg-bëgg ndax xam ngeen ne jamono ji Barcelone taxul mu dox loole su suñu jëlee super coupe d'Espagne bi nag dinañu gën a am yëg-yëg gën a doxal am yaakaar ci équipe bi Pedri ak Cancelo yépp nag dem nañu waaye wóorul ñu football suba mën naa am nag su fekkee Barcelone dem na ca final ba ñu football ca final ba waaye suba moom wóoragut Pedri ak Cancelo football loolee la esport xamle. ñu jugee esport jël Mundo Deportivo Bernard Richard le journal bi fësal ca wu njëkk wa kii nag mooy directeur généralu super league bi ngeen di dégg muy super boobee ñu bëgg a taxawal te waa UEFA ne du ci dal moom Bernard Richard nag dafa séq waxtaan bu yaatu ak Mundo Deportivo moom nag wax na caabi yi nga xam ne ñooy ubbi super league boobee moom Bernard Richard nee na super league bi bu ñëwee. bi dina tënku ci calendrier wu FIFA maanaam ni FIFA di doxee day bootu ci ginnaawam du yàqal dara équipe nationale yi waaye nee na super league bii nag mooy tëggaat football bi deferaat ko football delluwaat fa mu nekkoon loolee directeur général bi xamle waaye nee na ñun nag jamono jii ñoo ngi waaj a door liggéey bi ndax am nañu quarante jàpp cinquante club yoo xam ne bëgg nañoo bokk ci liggéey bi kon mën naa am balaa yàgg super league boobee door bu dooree nag ku koy seetaan doo fay dara rawatina tele yi nee nañu ñoom benn site la ñuy ubbi tijji ko duñu ko tëjal kenn képp ku ko bëgg seetaan da ngay seetaan doo fay dara directeur général super ligue bi tudd Bernard Richard moo yëkkati kàddu yooyu jagleel ko waa Mundo Deportivo waa Barcelone nit ñoo ngi ci surnal bi yegg nañu ci Riyad démb ci jàmm suba nag la ñuy football Osasuna la ñuy jàkkaar lool mu soxal demi-finale super coupe d'Espagne ñu jugee Espagne wutali Italie wàcc Rome fekk fa Corriere dello Sport waa Inter ak Juve mi xëccoo bi la bi fësal ca wu njëkk wa waaye journal bi ci Maximiliano Allegri lay wax l'homme scudetto la ko tuddee moom dafa miin lool Serie A bi suba nag Juve day jàkkaarloo ak Frosinone match boobee su fekkee Maximiliano Allegri moo toog ci banc bi tàggat leen dina am quatre centième matcham ci série A bu Italie kon mi ngi waaje min série A bi loolee la bi bi xamle te loolee su ko amalee rek dina bokk ci coach yi nga xam ne ñoo ëpp ay match ci série A ba jamono ji Marcelo Lippi la topp Marcelo Lippi moomee li mu am ay match en tant que coach ci série aba ba mi ngi toll ci quatre cent six kon si match képp moo dox diggante maanaam juróom benn match suba nag su fekkee Maximiliano Allegri tàggat na waa Juve dina dugg ci histoire scudetto bi loolee la journal bi le bu dee waa Inter moom moom képp la ñu tiit ndax Maximiliano Allegri min na lool Serie A bi kon Inter li ñu jàpp moo di suñu koy ñàkk moom mi mën na leen ko xañ jamono ji dañ koo tiit lool ñu jugee Corriere dello Sport de Milan fekk fa la Gazzetta dello Sport waaye Juve ak gone goneem la surnal bi fësal ca xët wu njëkk wa Juve nag li ñu bëgg moo di gën a jox ndaw gone yi rawatina seen gone gii di Yildiz ndax gone gi kat jamono ji mi ngi doxal ak waa Juve te mi ngi dugal ay bit li ñu bëgg nag moo di gën ko jox loxo may ko temps de jeu bu doy bu dee mooy moom temps de jeu am dafa wàññeeku bu baax maanaam li muy football bareetul bu dee kii di Kostic moom mën naa am mu jógee ci yuufe Juve moo ko moom waaye mën naa am mu dem ci réewu Arabie Saoudite doxal yuufe googee sax ñoo ngi xaar ñaari gan fan yii di ñëw ndax Thiago Diallo jege na lool ngir dem ci seenu club jàppale leen ak Bernardeschi jamono ji Massimiliano Allegri mi ngi leen di xaar waaye bu loolee amee li mu bëgg moo di jox loxo gone yi gone yi jàppale ko ngir mu mën a jël scudetto bi bu dee waa Inter mi jël pie ci scudetto ba moom ñoo ngi wéy di am yaakaar te ñoom nag ni ñu doxalee ci matchu ale yi noonee la ñu bëgg a doxalee ci matchu retour yi jamono ji Serie A xaaj na waaye Inter ànd ak Inzaghi ñoo jël pie am nañu quarante-huit poñ ni ñu doxalee nag ba jël pie bi mu xaajee noonee la ñu bëgg a doxalee ba jël scudetto bi ci matchu ale yi nag match yi nga xam ne Inter daan na ko am Inzaghi da daan noppal ay punkalam yenn